di bisimila mbokku internet ci dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci accident bu métti ba amoon ca Yoff ba ñetti nit daldi ci ñàkk seen bakkan chauffeuru camion bi ne woon tekk ba jamono ji yëkkati ne ay kàddu jëmale ci anam bi nga xamante ne ca la mbir ma amee ay atam a ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent waaw fanweeri at yu manqué benn camion bu mu doon dawal mujj def ab accident ba jur fab jéeya foofale ca Yoff APEX yi ci àllarba jee ñu génn ñetti nit mujj ca yoo xamante ne daanaka ñaar ñaar ay xale yu ndaw lanu ci ay kàddoom moom chauffeuru camion bi di wax ni dama taal sama camion dal di jubali ca quartier bi jàmmalaay loolu moo ma yóbbu yoof li waral accident bi nag mooy ba tey bu ñu sukkandikoo ci kaddu kàddu chauffeur bi di xam xamle ne ci waxtu woo xamante ne camion bi ma nga doon daw lu gaaw ci lu bari dafa jékki-jékki rek dal di seen ci kanamam ma ab góor gu mag góor googule biñ ko seetaatee gis nañ ne mu ngi wuyo ci turu Mas Gueye ba ne moom laa doon jéemam mooy moytu ci may jéem a taxaw nag ci la seetlu ne samay frein doxatul ma jéem jéemaat camion bi taw a taxaw mënatuma woon nag def lenn lii bokk na ci kàddu yi nga xamante ni moom la yëkkati ci waxtu woo xamante ni way takk der yi ñoo ngi ko doon déglu foofu lay ca gendarmerie ba bu ñu sukkandikoo ci xibaaru yéenekaay bii di l'observateur camion béton bi waa ji doon dawal dafa mujj wàcc yoonam boobu lee jàdd soriwaay ba toll na ci xayma lu toll juróomi téeméeri meetar daal di mbëkk ab taxi laata muy faat ñett ci ay doomu aadama chauffeuru camion bi di ñëwaat ci anam gu mbir mi amee ak na mu ko dundee di wax ay rekk ci ay kàddoom ne maa ngi doon gis ni nga xamante ne noonu la camion bi doon jaaree ci kaw paa bi di maas nekk ab marchand ambulant ni ma dalee ci kawam ba faat ko dama tiitoon ànd ak loolu ma jaxasoo lool am naqar njaqare ak métit ci la ma doon gis ci jéeya yi l'accident bi dal di mujj jur mënuma ci dara nii laa toogee di gis camion bi di dal ci kaw tak taxi bi dama yaakaaroon ne chauffeuru taxi bi dina génn daw ngir sauver bakkanam am naa lu ma métti lool ci gis li xew di xew te mënuma ci dara mënatuma woon def dara ngir dakkal jéeye ji yile kaddu itam bokk na ci yi mu yëkkati ci kanamu sandarma ya moom chauffeuru camion bi nag waxtu wi ñuy wax ak yéen ma nga ca garde à vue ca gendarmerie bu Foire léegi nag wér na ni li ma taxoon na Papa di wax naan oto malaaka la moytu ko yow mi dox ci kaw tali bi na bi waaye itam sooy dawal bul caaxaan Tactic TV mi ngi jàll mbokki ñi faatu ci jéye ji te di leen ñaanal yàlla xare leen aljana jërë ngeen jëf